bokk yi xarit yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuy bu baax baax ci euh, sunu people TV ñu dikkaat ak yéen ci li gën a fës ci xibaaru internet bi xibaaru internet bi nag li ci gën a fës bokk na ci coow li nga xamante ne moo dal ci kaw kile di député bi di Ousmane Sonko ci mbirum wéyal wi nga xamante ne dañu ko ko accusé waaye nag mu nekk mbir moo xamante ne mbir mu doy war la te mbir mu jaratee la li ko waral mooy gannaaw bi nga xamante ne wax nañu mbiru wéyal ak lu mel Ousmane Sonko daal def. benn sortie daal di wax la nga xamante ne moo ko yóbbu woon sa salon de massage ba muy yëpp mbirum feebar boo xamante ne 2006 ba tey ma ngay sooxoog moom waaye nag bi mu demee maanaam ci wàllum paj bekk lu mel nu ko mu du yabal ci ab salon de massage moom sax wax na ne bi mu demee ca salon ba laata muy euh, tàmbali li nga xamante ne moo di séance de massage yi wax na ni moom euh, laajte na ba ñu xam ne foofu di salon ba nga xamante ne moo di Sweet Beauty moom nekk salon boo xamante ne bu am réputation la bu am ay kayit leer dem looloo taxoon sax mu nag ñeme faa dem ngir defee fa li nga xamante ne moo di ay séance de massage waaye nag la nga xamante ne moo fa juddu ci ab coow mooy dañu ko jiiñ la nga xamante ne moom moo di mbirum wu yool ak ki nga xamante ne moom moo di Adji saar dañuy wax ne moom ne daf ko doon menacé ba noppi di ko wax ne bu waxee loo xamante jëm na ci mbiru wu week lu ni mel da koy euh, dóor pistolet ba wax ko sax li nga xamante ne moo di menace yi ba mu koy def dafa yoroon ab pistolet loolu Ousmane Sonko daal dina koy tekki ba mu set wecc bi di wax ne moom la nga xamante ne moo ci am xam na wax ji fan la jógee xam na ñi nga xamante ñoo ko commandité ba tudd ci ki nga xamante ne moo di président Macky Sall bi waaye la nga xamante ne moo ci bees mooy kile di deuxième masseuse bi nga xamante wax nañu ne moom nekkoon na fa ba ñu tàmbalee massage bi ci ab diir moom dafa daal di génn ca la nga xamante moom moo di foofu ca Salba ki nga xamante ne nag moom moo di euh, deuxième masseuse bi moom nag section de recherche bu Colobane moom daal di nañ koy entendre ba nga xamante ne euh, moom nag wax na la nga xamante ne moo fa moom nag euh, mu ngi koy ñu ngi koy woowee kii lee di Mama Ba moom nag la mu wax ci la nga xamante ne moom moo di ca kanamu enquêteur ya moom nee dafa génn benn instant boo xamante ne ci ba ñuy maase kooku di Ousmane Sonko daal di lay génn salle bi waaye nag ca biir génn ba nee déggul lenn loo xamante xamante ne mën na ne rek ne ke la mu bàyyi ca salba di Adji Sarr ñu ngi koy violé ndax nee na déggul di euh, yuuxu déggul kenn koo xamante ne woote na ak euh, wàllu loolu nag ki ñu koy indil mooy journal bi di l'observateur waaye naka moom ci ki nga xamante ne moo di Mama Ba di deuxième mars bi ba am na lum ci yokk ci la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllum wiyol bekk lu nu mel nee na daal moom xamu ca dara ci la nga xamante ne moo di mbir mu viol ba ñu tudd ca biir salon de massage ba waaye nag journal bi ba tey Ndiaye xamal nañu ne kii lee di euh, masseuse bi nee na moom nekkul moom kese la ñu entendre foofu ca section de recherche ndax kii lee nga xamante ne tamit moom moo di euh, borom këru kii moom ma salon de massage bi moom tamit euh, laaj nañu ko waaye moom tam la mu wax nee na moom mi nga xamante ne ca booru salle de massage ba moom nag ca la néegam nekk waaye nee na déggul lenn loo xamante ne rek ne mën naa wax ne ab yoon la amoon na fa ca fa nga xamante ne moom moo di salon de massage ba kon nag mbokk yi ne wàcc na ci euh, fajar gi ci mbirum ki nga xamante ne moom moo di Adji Sarr ak Ousmane Sonko ak salon de massage bi di Sweet Beauty ak deuxième masseuse bekk jëkkëru ki nga xamante ne moom moom ma salon bi lépp loo xamante ne am na ci xibaar daañu leen ko toppal ci sunu people TV jërë ngeen jëf.